mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñëwaat ci jotaay biñ baaxoo ànd ak ci waxtu wii di tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ni ma ko waxee woon ci njëlbeen nga ni sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni seen mbir yi am solo dee leen ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim dem ba yegg ci ni sax mbir mu ngeen commencé wut bismillahi rahmaani rahim du am barke mbaa ba day manqué kullu kalaamin awa amrin zibalin laa yaftaxu bi zikrillahi fa huwa abtaru sallallahu alayhi wa sallam woon mbir yi ëpp solo ci yéen te du ak mooy yàlla rek dee leen ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim kon ginnaaw biñ jullee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu mbooleem kuy ab jullit te ñu bàyyi xel di leen ziyaara ngeen gi ziyaar di ñëw ci jagle liñ ñu bëgg a ñëw ak yéen tey lu mel ni ci ay muslaay yoo xam ne nit ki mën na di ko def di ci jariñu ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni xuusoo bi rabbikum minal lahini fallahu xayru xaafisin muhini muslu leen ci sun borom ndax yàlla kat mooy ngën gi aji musale ji mooy itam ngën gi aji wattu ji loolu itam tax na ñu ñëw ci lenn loo xam ni baax na lool nit ki di ko saxal ci jamono june muy laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azim bari na ci sëriñ bi téereem yoo xam ni sax njëlbeen nga indi na ko ca loolu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp koo xam ni mi ngi koy faral di wax ci jamono ju nekk suñ borom dana ko musal ci juróom-ñeent fukki jàngoro ak juróom-ñeent yoo xam ni bi ci gën a woyof mooy ndofe loola taxoon mu ni aksaru aksaro min qawli laa hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim fa innaha tadfau tisatan wa tisina daa an adnaha wa huwa min al jununi kon loolu am na solo lool nit ki di ko def ci jamono june te saxal ko lool ndax dana ko musal ci juróom-ñeent fukki jàngoro ak ak juróom-ñeent yoo xam ne bi ci gën a woyof mooy ndof ba tey bu ñëwee ci laa hawla wala quwata illa billahi al aliyil baax na lool nit ki bu dee doog a fasanteeg nit wóllëre mu wax ko ndax bu ko waxee itam dana ci jële njariñ lu rëy rëy ndax seen diggante bi suñ borom mën na koo bañ a daal di tàqale ba ala xaal ndax bu dee yaa ngi doog a xamanteeg nit nga ni laa hawla wala quwata ma sha allah suñ borom dana saxal ànd ba te dana yàgg lool ba te itam ci jagleel yooyu ñu ñëw ci rek koo xam ni itam sab noonu sonal na la te amoo itam foo ko mën a faje bëgg bëgg cee mucc wax ko itam dana la ci musal moom la ñu waxoon ni man asaruhu la aduwu walam yajid ma yaxlisuhu fal yaqul la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim ñett yooyu muy ñett jagleel yooyu yooyu nga xam ni ci benn bi la ne ci benn aaya bi la ne muy la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim benn bayit boobu ku ko saxoo ku ko saxoo di ko def rek dana la musal ci lépp ak ci fànn yépp kon war na jullit bi mu di ko fonk bu baax a baax te di ko def kem kàttanam ba tey ayatul kursi yu ñu koy wax allahu laa ilaha illa huwa ñu gën koo miin ci ayatul kursi yu sayiduna muhammad waxoon na ni képp ku koy jàng ginnaaw jullik farata gu ne na ko leer ni li dox diggam ak àjjana mooy dee man qaraa ayatul kursi yu dubra kulli salaatin maktuba lam naaw min duxulil jannati illa al mawt ki nga xam ni da koy faral di jàng fu mu toll ayatul kursi yu na xam ni li dox diggam ak àjjana mooy faatu loolu rek moo dox diggam ak àjjana bokk na ci itam ayatul kursi yu ki nga xam ni mi ngi koy jàng mi ngi koy jàng ci guddi ginnaaw bi mu waajee ba jëm ci lalam suñ borom dana ko wattu te guddi googu itam seytaane du ko ca jige ayatul kursi yu ku ko saxal itam suñ borom dana la musal ci mbooleem loo xam ni mën naa lore ci àdduna ak alaxira kon njariñul ayatul kursi yu ak njariñul laa xawla wala quwata mel na ni sorewuñ yépp rek suñ borom da ko def ngir nit ki suñ borom da cee sabab ngir nit ki bu bu koy faral di wax rek mën nay mucc ci jamono ju nekk ba tey wa in qarata waqta subhin basmala xasran wasaltaha bi lafsi xawqala xarajita min kulli dunubi ya fata ka mi mawlidika fii ma sabata ni ko cheikhul xadim waxe woon ci masalikul jinaan daat ni nit ki bu dee mi ngi jàng ci waxtu suba bismillahi rahmani rahim fukki yoon ginnaaw ba itam mu teg ca laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azim sun borom dana ko génne ci mbooleem bàkkaar yi yim defoon yëpp dana ko ko jéggal te day mel ni bis bi nga bis bi nga xam ni way juróom jigéen juróon nag ko bis boobu nga xam ni noonu la sete woon ci bàkkaar day mel ni bis boobu ci moom kon nit ki bu koy saxal di def saa suba jotee mu jàng bismillahi rahmaani rahim ba mu yegg mu jàng laa la walaa quwata mu jàng ko itam ba mu yegg illa billahil aliyil azimi dana mel ni koo xam ni day doog a gane àdduna bokk na ci itam jagleel yi sun borom dana la jañal juróom-ñaar fukki balaa yoo xam ni bi ci gën a bi ci gën a suufe rek bokk manees manees na ni ndoxum mooy gaana ak ndoxum siteeg yooyu sun borom dana la ko ci jañal waaye dafa waan ka isan rabbuna ala isnayni maa sabhina baaban min balaa bokk na ci itam ki koy def sun borom dana ko musal ci juróom ñaar fukk ak juróom benn ci bunti balaa bokk na ci itam ki nga xam ni mi ngi koy def na xam ni gën ngaa suufe ci li nga xam ni mooy feebar yi mu koy musal mooy gaana ak ndoxum siti yooyu boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ci la sëriñ bi doon wax naa yakunu adnaha juzaamun ulima wa barasun ala ittifaqil ulama ginnaaw loolu itam ki nga xam ni saxal na ko muy saa yu xëyee wax bismillah daal di koy wax fukki yoon teg ca laa hawla wala quwata illa billahil aliyil azim sun borom subhanahu wa taala dana ko booleek juróom-ñaar fukki malaaka yoo xam ni dañuy féete ci moom di ko muslul yàlla di ko jéggalul yàlla sëriñ bi ni loolu ñi ngi ko jëlee ci xadisu ngën gi mbindéef li sëriñ bi waxoon ni yastaxfiruuna laka lil layli kasa xaddasahu xayrul wara wa uxisaa mboolem ki nga xam ni mi ngi koy def suñu borom dana ko jéggal dana ko jéggal mbooleem lum mu mën a def ci guddi gi ak bëccëg gi yépp te itam suñu borom dana ko booleeg juróom-ñaar fukki malaaka yoo xam ni ñi ngi féete ci moom di ko jéggalul yàlla bokk na ci itam njariñul la te mooy bismillahi rahmaani ni nit tooñ na la te nga képp koo xam ni nit tooñ na la moo xam bor bu la yoreel wala muy koo xam ni yoreel na la bor te nunguwulaa fay te ëpp na la amoo fenn foo ko mën a joytoo sëriñ bi jàngale woon na ni boo jàkkaarloo moom na nga wax bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon boo ko waxee wa taala dana la dana toroxal dana dana mokkal ab xolam bam làggi ci sa jëmm ba dana la fay loola moo tax sëriñ bi ni wa kullu man fi wajai saalimin qara xamsiina minha wa yaxaafu darara fa innahu yamanu yamanu thaalika darar li annahu yuzilluhu rabbul bashar loolu mooy ki nga xam ni nit dalaa tooñ yoreel la te mënul te nunguwu laa fay te amoo foo ko mën a joytoo boo jàkkaarloog moom jàngal bisimillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon sun borom dana mokkal ab xolam ba dana la fay bokk na ci itam njariñal basmala muy bisimillahi rahmaani rahim koo xam ni itam dem na ba tëdd cib lalam mu jàng ko ñaar fukki yoon yoo xam ni ak benn ñaar fukki yoon ak benn yoo xam ni ëppul yéesul mooy bu ëpp bu mu ci loo xam ne du ci yokk dara du ci wàññi dara ñaar fukki yoon ak benn yu mat sëkk fam doon nelawe ba ba na muy yeewoo suñu borom dana ko musal ci day mbetteel te dana ko musal itam ci sàcc boo dana suñu borom dana ko musal ci sàcc googee guddi suñu ci seytaane suñ borom dana ko musal ci ay ayu seytaane ak ayu leneen lu dul seytaane loolu moo taxoon sëriñ bi naa wa kullu man qara'aha inda ruqaat ihda wa ashrina faqat bi las diyaad fa innahu yamanu yamanu mawtal fajati wa kulla saariqin bi tilkal laylati wa kulla ahad min charrihi wa charri xayrihi abad bokk na ci itam ki nga xam ni saa yu demee bay tëdd jàng na ko ñaar fukk benn suñu borom dana ko musal guddi googa dana ko musal ci day mbetteel ak jëpp jëf ju ñaaw dana ko musal ci sàcc guddi googa dana ko musal itam ci saytaane ci guddi googa bokk na ci itam ki nga xam ni mi ngi waaj a war daaba lu mel ni daaba lay war wala oto bu ñu nee daaba mooy lépp loo xam nit ki da ci yéeg rek mu di ko yóbbu ci gàttal bu dee nit ke ma ngi ca yéeg ginnaaw ba mu ca yéegee mu wax bismillahi rahmaani rahim fa nga xam ni fa la doon yéege sun borom dana ko bindal dana ko bindal mbooleem ay ndëggoom lépp sun borom dana ko defal ay yiw sun borom dana ko defal ay yiw te yiw yiw yooyu mënee su koo lim mëneesu su koo takk njariñ yoo xam ni amul daytal moo tax sëriñ Touba waxoon ci masaalikul jinaan ni waraaki bu daabati mahma basmala hindaru koo bihi laha wa hamdala lahu malaiku salaami xasanatan adadil aqlaami ka adadil aqdaami wa qadaruha aksaru min an tuxsa amal fawaidu fala tustaqsha mboolem koo xam ni itam yaa ngi yéeg ci oto charrette ak yu mel ni yooyu nga wax bismillahi rahmaani rahim ba fa ngay jëm sun borom dana la booleeg malaaka yoo xam ni sa limum ndëgg yi lañ lay bindal ay yiw ka xadadil aqdaami ni ki limum ndëgg yi rek moom lañ lay bindal ci ay yiw kon loolu mooy jagleeli bismillahi rahmaani rahim yoo xam ni yiw wi nit mënu koo xayma nit xel mënu koo daj mboolem koo xam ni itam saxal na ko suñ borom mën na ko musal fawu adduna mën na ko musal itam fawu alaxira wasalaatu wasalaamu ala bi alihi wa sahbihi wa xadim